taalibe yi ñi ngi am mbégte mu rëy di leen nuyu ci barab bu tedd bi ñu leen daan nuyoo ci waxtu wi muy jumaay Touba ngir waajal màggalu Touba 18 safar 1442 hijriya tolloo ak njëlbeenuk mois de euh, octobre 5 wala lu ko wala octobre cinq wala 6 octobre 2021 euh, daayira mu xaddamatul xidma fas yéenee taxawee liggéey bu am solo bu mu daan taxawee ci jumaa ji daayira bi nag nii la fas yéenee doxale ab liggéeyam li ko dale benn fanu safar dana tàmbali opération set setal yi nga xam ne moom la baaxoo def ci jumaa ji ci loolu dana bale jumaa ji ba mu set wecc ci ruq yépp kaw ak suuf diggante terrasse yi ak fépp raxas ko ba mu set defaraat lépp lu fi yàqu ci ay jumtukaay muy piil yu yàqu muy ventilateur yu yàqu mbaa beneen matériel bu mu mën a doon te yàqu te ñu war ko defaraat yokkat ay jumtukaay yi nga xam ne moom la daan jëfandikoo ci wàllu fegu ndax xam nga ne ren màggal gi dafa tombe ak jamono joo xam ne dafa am lu xew ci àdduna bi te mooy Covid 19 loolu moo tax li mu daan jëfandikoo ci wàllu fegu. te mooy prévention fas na ko yéene yokk bu baax a baax a baax a baax loola bokk na ci pompe yi nga xam ne daana ko def xam ngeen ne baaxoo nañ di désinfecté jumaa ji euh, ci ay ñaari fan yu nekk bu dara xewul nii ci jamono Covid bi daanañ ko def benn fan waaye fi mu ne ñu ngi koy def par ñaari fan bu dee ajjuma it fu ñu jullee ba noppi danañ désinfecté barab bi waaye loolu dispositif yooyu nag dañ koy yokk gën koy yaatal ci biir màggal gi danañ ci ñëw ci kanam tuuti euh, jumtukaay yooyu itam danañ ko wutal ay danañ ñu wut jumtukaay yu doy yoo xam ne day nekk ci li wër jumaa ji lépp muy bunt yépp loolu moo tax danañu fi nekk benn fanu safar ba treize safar di liggéey ci liggéey boobu ci jumtukaay yi ak setal gi ak lépp loo xam ne barab bi laaj na ko le 13 safar nag bu xasee ba jot le 14 safar ci lañuy ñuy tàmbali nag liggéeyu màggal gi bu boobaa dana am permanence su 500 personnes yoo xam ne dañuy nekk ci jumaa ji ak li ko wër ngir saytu ndigal li nga xam ne sëriñ bi joxe na ko ci jumaa ji ñu war koo taxawee juróomi téeméer yooyu itam ni ñuy sàmmee jumaa ji ni la ñuy sàmmoo itam penc mi nga xam ne moo wër jumaa ji ne la ñuy sàmm itam armeel yi nga xam ne moo nekk ci kanamu jumaa ji ni nga xam ne armeel yi bàqiyan yi itam noonu lay amee personnel bu fa nekk boo xam ne ñoomit it dañuy sàmmonteeg yi nga xam ne tëral nañ ko ngir nit ñi war cee doxe na ci biir màggal gi yooyu nag bokk na ca julli gu ne buntu jumaa ji dana am ñu fiy taxaw danañ fi teg ay bërigo yoo xam ne ngir raxasukaay lay doon kuy dugg ku nekk dana raxasu dana amit ku taxaw ci wetam yor sel ngir ku raxasuwul walla ku raxasu ba noppi te bëgg a laal sel itam ñu defal ko sel mu laal dana amit ku taxaw di contrôler masque yi ñooñu itam masque rek mooy nekk seen taxawaay ñi nga xam ne ndox mi rek moo nekk seen taxawaay ndox mi rek la ñuy sàmm bu jeexee ñu duyaat ko ñi nga xam ne sel rek la ñuy sàmm la ñuy yor ñoom laal sel rek mooy nekk seen yitte ku agsi danañ fexe ba noo mën a laale sel ñi nga xam ne masque rek mooy seen liggéey itam masque rek la ñuy xool ñoom amuñu soxla ci yeneen yi des waaye masque rek la ñuy xool ku yor masque ñu bàyyi la nga dugg ku yorul masque wala sa masque yàq wala nangam ñu changer la ko joxaat la masque boo duggee nga toog ni ñu ko gisee jumaa ji ci suñu ginnaaw ñi ñëpp ñu ngi koy gis am na ay barab yu ñu mandargaal mandarga yooyu danañ ko gën a yeesalaat ba mu gën a fés ku agsi fu am mandarga dee si fa toog fi ñu mandargaalu dara newu fa mooy wane ne fu ñu war a toog la nga toog fa mooy fii nga xam ne koleesu fa dara loolu mooy euh, tàmbaliwaayu liggéey bi li nga xam ne nag moom la ñuy ñaan képp kuy ñëw mu sàmmoonte ak moom mooy buy ñëw na takk masque bu agsee na raxasu mbaamu laal sel bu duggee na dugg fi ñu ko na toog fi ñu ko loo ci sàppe yi bu ñuy dugg itam nañu toppante maanaam nañu rang rang boo xam ne diggante ku nekk ak moroom ja dana am espace loolu it ñu ngi koy sàkku ci julli yi ñu ngi koy sàkku ci siyaara yi bu dee siyaara yi nag danañu teg ay euh, nappier autocollant yoo xam ne danañu ci xàmmee fi nit ki war a taxaw nga xam ne kenn ko nekk boo egsee ci sa kanam da nga gis ay tànk yu collé ci sa kanam nga xam ne fii tànk yi nekk fii la nit ki war a taxaw euh, bu ñuy génn itam ñu bañ a raj raj génn naat ndànk-ndànk comme ni nga xam ne noonu lañ duggee woon loolu mooy sart yi nga xam ne moom la ñuy sa sart ci képp koo xam ne day ñëw bu dee barabu siyaare bu dee julli bu ñu jullee ba noppi rek cinq minutes ñu ngi koy dañ koy ñaan mu génn ndax dañuy war a barewaat barab bi toppatoowaat ko ndax jamono moo ko laaj fi mu toll nii bu dee siyaara nag du ñu nangu ko toog moom bu duggee rek day ziyaara génn jàll may moroomam mu ñëw ngir sàmmanteeg ndigal yi nag bis bu ne danañu pomp jumaa ji ñaari yoon benn ci suba gi benn ci ngoon suba ak ngoon aspire tapis yi ñaari yoon moom itam suba ak ngoon dana am mbooloo mu nekk itam ci rangi siyaare yi comme ni ñu ko waxee woon di leen di sàkku yooyu nga xam ne moom lañ sàmm lañ leen ñaanoon ñu sàmmanteek moom te mooy soreyante yi ak itam di dox bañ a taxaw kuy dugg rek bala ngaa egsi ci bala ngaa dugg ci biir barab bi nga tàmbalee ñàkk jàng say ñaan yi nga xam ne moom ngay siyaara nga xam ne booy dox di romb ndànk bala ngay génn ci buntu ba ca des fekk sag ñaan sot ndax toogaay yi day indi jafe-jafe ci loolu nag liggéey bi day soxlawoo ay jumtukaay yu bari xamees na ko bokk na ca comme niñ ko waxee léegi ginnaaw dañoo bëgg ñëpp di raxasu dana laaj ay defukaayu ndox yu bari bunt jumaa ji am na lu toll ci ñaar fukki bunt ak juróom-ñaar 27 port porte bu nekk fas nañu fa yéenee teg bërigub 200 litres boo xam ne dañ koy raxasoo danañu faggu itam ay réservoir yoo xam ne day mottali day remplir ndox mi su jeexee ak ay nit ñoo xam ne itam duy ko rek la ñuy liggéey kon layu raxasu moom yaakaar naa ne mën naa euh, ñàkk am sel bi itam ni ñu ko waxee léegi danañu fexe ba mu doy sëkk insha allahu taala ba ki ci ci kanamu ki yor ndox mi dana fa am ku taxaw koo xam ne wala ñu taxaw ñoo xam ne loolu rek la ñuy sàmmanteel kon sel moomu itam danañ ci soxla quantité bu baree baree baree bare lu néew néew néew néew dana jege euh, juróomi téeméeri carton eau de sewel itam danañ ko def ci ndox mi danañ ko itam jëfandikoo ci barab bi di ko raxase barab bi moom itam quantité bu bari lañ ci fas yéene jëfandikoo comme ni nga xam ne noonu lañ ko jëfandikoo ci Covid bi bi mu commencé ba léegi naka noonu saabu itam moom it dañ koy jëfandikoo lu baree baree baree bare ci ci ci ci barab bi am na ay produits yi tam yoo xam ne produits yu ñuy désinfecté la moom itam yu seer la yoo xam ne service d'hygiène ñoo ñu ko recommandé waaye ay façon lay doon ndax dañoo wax ne boo pompé benn bi bu subaa nga pompaat ko boo léegi nga pompaat ko day dem ba mu yàgg day néew doole tax na faggu dañuy fas yéene faggu ñaar ba ñett ba ñeenti xeet yoo xam ne duñu bokk boo jëlee bii suba jël bii ngoon bu ëllëgee nga jël bee ci suba gi jëlaat bee ci ngoon gi awante ko ngir mu gën a nekk lu amal njariñ bareb bi ni ñu ko defee itam ci bunt jumaa ji mbedd yi nga xam ne ñoo dugg ci penc bi itam waajal nañ ko ngir teg fi moom itam ay raxasukaay ngir ko dugg raxasu waaye jëmmi penc bi ci boppam am na ay yu ñu fi tere woon naka jekk muy lu mel ne njaay mi muy ñu mel ne ñi ñi nga xam ne dañ daan def ay géew di dajale nit ñi di wax wala yu mel noonu yooyu yëpp ba ci wecceet waak bundu xataal mu ci yalwaan meeg yëpp dañ ko daan tere waaye bii yoon nag am na yeneen yu ci dolli ko ngir gën a yaatal penc mi ci tolluwaayu jamono tax na baas yi nga xam ne dafa daan nekk ci penc mi dañ koy génne penc mi plateau yi nga xam ne itam suñu bokk journaliste yi ñoo ko def te mu daan am ay nit ñuy taxaw ci ginnaaw di seetaan ak yu mel noonu yooyu dañ koy tuxal ci yeneen barab yoo xam ne du nekk ci mbedd mi tey ba mbooloo mi di ci man di taxaw muy indi ab raj raj loo foofu ñu ngi ciy profité di ñaan journaliste yi nga xam ne ñooy ñëw ci jumaa ji ku ci egsi te bëgg a def reportage nga jaar ci bureau bi ci cellule de communication bu jumaa ji wax leen la nga bëgg ñu defal la autorisation nga dem kenn du la am empêché ci dara bu fekkente ne da nga yor drone itam na nga ñëw ba ci ñoom nga leer nga wax ak ñoom bu mënee jóg danañ la jox ndigal nga mën ko yëkkati ndax xam nga ni jamono ji ñu toll jamono ji toll xaw naa jabe te drone bi itam ñu bari miinuñ ko bu ngeen fàttali ko am na fi at moo xam ne benn drone bu fi jógoon boo xam ne indi woon na fi bousculade bu xaw a doy waar te loolu moo tax fuy mbooloo yi daje bala ñu fay dawal drone il faut ñu waxtaani ko seet yan barab lañ koy mën a yëkkatee ak yan barab lañ ko dul mën a yëkkatee loolu moo tax ñi ngi sàkk képp koo xam ne ñëw na te yor drone boo xam ne bëgg na cee filmer mu jaar ci bureau bi waxtaan ak ñoom danañ ko teg ci yoon boo xam ne dana mën a def liggéeyam na mu ko bëggee te du am benn jafe-jafe. nii nga xam ne loolu lañuy ñuy liggéeyee ci jumaa ji itam noonu la ñuy liggéeyee ci armeel yi ci kanam moom it buntu bi buntu armeel yi waxuma buntu barab yi waaye buntu armeel yi dana am ñu fa nekk ñoo xam ne. liggéey bii ñuy liggéey ci jumaa ji ñoom it noonu la ñuy liggéeyee foofu su ma waxee jumaa ji nag lii ma wax lépp ni mu concerné jumaa ji ci salle bi ñuy jullee noonu la concerné barab bu mag bi ak boolem barab yi nga xam ne ñoo nekk ci biir miiru jumaa ji ñun ñëpp ñoo fas yéene ànd liggéey boobu taxawu ko ci ndigalul sëriñ bi ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi sàkkoo ci noonu euh, ci loolu li wër pénc mi itam ñu ngi ciy bàyyiloo xel lu demee ne oto oto yu mag yëpp sax lañuy wax loolu yaakaar naa sëriñ bi sàkk woon na ko ci kilifa yi ba arrêté bi génn na jàpp naa ne ci kanam tuuti pano yi dana taxaw waaye rawatina nag oto yi nga xam ne ñooy sëb sobe lu mel ne oto bidans yi ak sareet yi ak jaaykat yi yooyu moom ñu ngi leen di moytuloo pénc mi bu baax a baax a baax ndax sëriñ bi wax na ne nañu koy teggi ngir wormaal ko waaye itam nag jur gi nga xam ne dañ koy jiital ñuy dem xam ngeen ne su màggal gi jub barab bi yépp dañu koy setal moom set wecc di ko waajale màggal gi di ko teeroo gan ñi waaye barab bi itam nag dafa nekk barab boo xam ne barab bu murit yépp warmal la ñuy war di sàmmonte ak warma jooju te bàyyi ma ku nekk xam ne ne bàyyi ma la suñu jiitalee ak jur mu jaar fi danañu fi bàyyi lu bari loo xam ne luy taqalaat barab bi lay doon lu koy ñaawaraat lay doon te dana indiwaat beneen coono boo xamante ne bii wax dëgg yàlla méngoowul ak ab taalibe di ko def ci barab bii ñu nekk loolu tax na ñuy ñaan képp koo xam ne da jiital ak jur muy traversé di dem nga jaarale ko ci yeneen mbedd yi nga xam ne nekkul yi sës ci jumaa ji euh, ci biir loolu itam waajal nañ fi itam meneen mbooloo moo xam ne dañuy yëngu moom itam ci wàllu wér-gu-yaram ñooñu bu ñu ñëwee lay nekk seen yitte mooy dox ci biir jumaa ji ak li ko wër pénc bi di bàyyi xel nit ñi képp koo xam ne yëg na dara ci yaramam seetlu nañ ne ki yëg na dara ci yaramam wala daanu na wala leneen gaar na ko bu boobaa ñoom dañ koy jël yóbbu ko ci am na benn infirmerie infirmerie bu nekk ci biir jumaa ji dana am ay docteurs yu fa nekk ñoom it danañ équipé wu ci ay balankaar yoo xam ne dañ ciy jëlee nit ñi ak euh, jumtukaay yoo xam ne danañ ci mën a def paj mu njëkk ni ci li biir jumaa ji su laajee évacuer ñu door ko évacuer fekk am na ay ambulance yoo xam ne taxawaloon nañ leen ci li wër jumaa ji ni ko déggee itam Sëriñ Basiir Mbàkke leeral ko ci waxtaan wi nga xam ne moom lañ njëkkoon a waxtaan loolu itam ñu ngi ciy bàyyiloo waat xel nit ñi mooy ci siyaare bi rang gi dangay gis ñoo xam ne dañuy baaxoo bu ñuy ñëw di yëkkati ay kàddu ca kaw di sikkar mbaa ñuy wax kàddu yoo xam ne dëgg la kàddu yi ñuy wax baax na waaye nag méngoowul ak barab bi barab bi lim mu ànd laaj mooy ab yar ay teggin ak dal ak na cell ne tek ba siyaara ba noppi ba génn ba dem do am benn coow ndax xam nga ne barab bi bara bu teewlu la nit ñi dañuy ñëw àndaale seen i yitte di ñaan di bàyyi xel seen boroom di bàyyi xel Sëriñ Tuubaa mi fi tëdd ñooñu nag wax dëgg yàlla kenn ku nekk war naa dal moom ci boppam ngir dalal moroomam ba li mu bëgg ñaan ak li nga xam ne moom lu bëgg a teewlu lépp mu man ko kon daal waajtaay wi mi ngi tàmbalee ci benn fanub safar incha allahu dana dem ba màggal ba am ba bisub màggal gi delsi lépp danañu nekk ci jumaa ji di ko taxawu di ko saytu bu baax a baax a baax ci tënk lii mooy waajtaay bi nga xam ni moom la ñu waajal su fekkee amul ay laaj yu ñu ci war a dolli